zalika adna ay yurafna fala yuzayna wa kaana allahu gafuran rahima yàlla subhanahu mu ne soxna yi suñu muuroo muuraay bi mat dee tax ñu xàmmee leen ba kenn du leen lor man day aaya bi yàgg naa ko jàng waaye jàppoon naa ne muuraay dafay musal jigéen rekk si loraa nit waaye ndekkete muuraay bi mat te moom mooy bi ànd ak niqaab dafay musal jigéen ba si virus ndaxte xam nga ne niqaab moo gën a efficace yi nga xam ne ñu ngi koy gis boole ko itam ak tiyaaba bi nga xam ne soxna si dafay am daf koy am si niqaabam comme mu njëriñu si àdduna moom mooy mucc si feebar yi mu njëriñu si àllaaxira moom mooy ay tiyaabam yokku